Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore Gaël de la confiance en Merci de vous likes, merci de vous

moo des ci ballon d'or bi nga xamne mom lañu wara ñu war joxe ren ji pour xam kan moko wara gagner a euh, bien évidemment euh, ki nga xam nak moy donc euh, kii di Vinicius Junior ak yenen joueur yi nga xam ne ngi ci xëccoo image bi na gaay dem leen rappeler on se rappelle ba Benzema taxawa woon fële place su Vinicius Junior de gis ñu jox Ronaldo trophée bi légui nak mom mo nek ni ah, donc ngeen gis ko film mu ne ça c'est autre chose ki nga xam également nak moom mooy donc également wa CAF ñom ñu daal di daal di. daan ñi nga xam mooy donc waa Libye gannaaw bi nga xam ne nag ñoom dañoo tegoon ay coono waa Nigéria moo doon daje ak ñoom ba pare dañoo jël victoire bi jox Nigéria 3 bi à 0 ba pare Libye ñu daan leen lu tolloog 50 000 euros muy donc gars yi 32 millions ak lu teg ah, de francs CFA la ñu daan Euh, Libye donc ci acte bi am pour man baax na parce que na permettre yenn équipe yi ñu bañ a xam ne loolu du nekk loo xam ne pratique bu baax la te ku ko def aussi dara voilà lépp joomu la joom lépp dina mën a dal sa sa kaw euh, ki nga xam ne nag le classico du FC Barcelone Nous di ko xaar Barça a gagné yi cinquième match ah, quatre derniers match Barça gis ngeen li def victoire euh, nombre de buts Nous xaar nag tey moo ko euh, ñii Barça ba Real Bok, lan la donc l'équipe de Danse Flick Barça nag euh, Real Madrid De 2001 à 2018 C'est donc 16 victoires pour Real 18 victoires pour le FC Barcelone ak 12 matchs nuls. Hein, nekk loo xamna ne ya yi ah, voilà donc day tax li di euh voilà compétition bi ak match bi tay dara neex mais ki nak di également Ansu Fati gars yi nañu daal dirigeant yu Barça yi pare nañ muy moom di Ferran Torres ah kuñ ci indil xaalis dal teg ko ci table bi ñu dal di lay jaay ndax Barça dal da fay nekk di renforcer li nga xam moo ko moo tax nee na ñoom yenn joueur yi Ferran Torres mi nga xamna ne comme je l'ai dit rek mom nak bëgg-bëgg moy tok du côté du FC Barcelone mais dal Barça fi mu waxul carrément waaw. waxul carrément euh, déet bien évidemment Et pendant ce temps, Guy, Fede Valverde, hein, donc au moment le joueur emblématique du Real Madrid finalement nañu am na benn joueur boo xam référence am ci lay inspiré wu plutôt pour xool euh, buy football et tout kooku du keneen ko dul kii l'a Lamine Golden Boy Camara hein, donc bi nga xam ne il s'inspire de Fede Valverde parce que joueur de boo dara il ne lâche rien du tout pas dans na qui kii di Lamine Camara nee na daal lay inspiré mais c'est une inspiration si bokk na si suñu gaynde yu Sénégal yi inspiré aussi seen défaite contre contre waa pour nangu jël revanche qui finale bi door leen à le Sénégal champion hein, champion d'Afrique encore une fois huitième finale consécutive Sénégal du coup joué mais la première fois Sénégal jëlaat trophée boo xam ne trophée bu yees mi soo ko la première fois ñu indi ko teg ko ñu jëlaat ko muy trophée bi ñu changé donc les joueurs de là qui voilà qui reviennent au premier plan de la